ibnu Mas'ud ne dama mas a nekk werante bi du war a sori cib lim ñoom fukki góor mu ne nu xanaa bu leen yàlla defee yéen saa xeet wi ngeen doon kaar waa ajana xam ne ku seet mboolem ñooy dem ajana yéenay kaar ba ko defoon ñeenti xaaj yéenay benn ba seen xol dana sedd ñu ne ko waaw mu ne xanaa kon bu leen defee ngeen doon ceer ba xam ne mboole waa ajana bu ñu ko defee ñetti xaaj yéen doon benn ba xanaa kon seen xol war sedd ñu ne ko waaw mu ne waat naa ci yàlla ne ku seet ñay dem àjjana yéen ñi yéene doon genn wàll ga waa àjjana jëpp bi ñu ko defee ñaari xaaj yéene genn wàll ga li ko waral mooy ñuy gëm di ay jullit dañuy néew ñooy weddi wala dem sawar a bari ndax ajj na àjjana ku gëm yàlla rek di ab jullit mooy tey dem te bu ngeen seetloo yéen ñi gëm ku leen doon tolloo lekk ñi nga xam ne ñoo gëmut day mel ne nga fekk aw wëkk wu ñuul mu am ci nag benn kawar bu weex bu weex boobee nag mu néewoo ci biir deru yëkk bu ñuul ba loolu ngeen néewoo ci biir doomi aadama yi wala boog aw wëkk wu xong am ca kawar bu ñuul kawar bu ñuul boobee nag mu wéete ca deru yëkk wu xong woowee noonu ngeen mel ci biir doomi aadama yi loolu nag moo tax kon ñuy dem àjjana yow ni doon genn wàll ga hadis boobu muttafaqun alayhi la waxan abi muusa al ashari radiallahu anhu wa alihi wa sallam kaana ndem nekk na mbaa ndem am na yow moo xiyaamati bis penc dafa xajiñ allahu yàlla ila kulli muslimin jëm ci bépp jullit yahood ab yahood aw nasraaniyan wala ab nasraan bu yàqul te mu wax ne ko xaasa kii fakkaaku ka mooy sa njot ina naari ci sawara wa fi riwaayatin bu jële ci moom ani nabi sallallahu alayhi wa sallam xaala ne yow jie dana dikk yow moom xiyaamat ci bis aw nit ñunal mosi mën a jullit ñi bi ginoo biñ ci ay bàkkaar am daal jibaali yu ne doj yi yaxfiruha dana ko jéggal allahu yàlla lahum ñeel leen muslim dafa allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fa yaqulu haza fakaakuka minan naari maanaahu mahnaam maa mooy la nga xam rek jaa dikkoon fi xadiisi abi hurayrata radiyallahu anhu ne li kulli ahadin kenn ku ne man silum fi jànn ci àjjana wa ci sawara bu duggee aljannata ajana xalafahu wootu ko alkaafiru yéefar nga wa max naa fakkaaku ka max naa mooy ànd ka naka yow kunta nekkoon nga mu ar mu ar robbam di kuñu gaaral li duxoo li naari ñeel dugg sawara wa haza te kii fakaaku ko mooy sa njot li anna allaha taala qaddara dogal na li naari ñeel sawara xaddaman lim yam la uxaa bëgg na ko feesal bay saa daxalaxaa ndem dugg na ko alkufaaru yéefar yi bi bunowatim ak seeni bakkaar wa kufrim ak seenu weddi saaroo ñu mujj fii ma anal fakaaki ci maxanaam ak njot lil muslimin ñeel jullit ñi wallahu aalam li addis ba gane woon su bis yàlla day fekk bi lu gën a moon ko ab yahood mbaam nasaraan ni ko kii day mooy sa njot ci sawara fa nga waroon dem ci sawara yahood bi mbaa nasaraan bi moo fay dem yow nga bañ faa dem am net li bu ne yonent bi gane woon bu bis pencee dama gis jullit ñi ñu fa taxaw indiwaale bàkkaar yu rëy rëy ba toll ne montagne yi muy doj yi te yàlla baal leen ku la bàkkaar yu rëy rëy mu daal di saraal yi mu waxoon ne buñu àggee ci bis penc julli bu ne yàlla da koy wan ab yahut mbaa am nasaraan ne ko kii mooy sa njot ci sawara mu ne loolu day mooy la addis Abu Hurayra waxoon ne kenn ku ne dañ koo sàkkal ñaari gétt ab gétt ci àjjana ak gétt ci sawara maanaam kër ci àjjana ak kër ci sawara képp ku dem àjjana moom bañ wañ la sa kër daañu la wan sa kër nga waroon dem ci sawara ne la boo gëmutoon nag fee ngay dem ko defee fooxee mu waroon dem nag fala yahood boobee ba nasaraan boobee di dem ndax bu dee yahood bu dee nasaraan ba beneen yéefar weddi nga mu weddi moo tax bu yeeyoo foofee ndegam nag yow jantal lu woon na nga dem sawara yow jullit bi ndax amal nga fab jët waaye yàlla sàkk na lim boo xam ne moo war a feesal sawara te yéefar ñoom daañu ko feesal ba doo fa deseetee jullit bi barab boo dugg loolu moo tax kon daa mel ne waran nga faa dem waaye yéefar yi ñoo la far wecci doon sa njot ba déggoo ci yaw jullit bi waxaan yubni omara radiallahu anhuma qaala sami'tu déggoon naa rasulallahi sallallahu alayhi wa yaqul mu wax ne yudd naa def na jegeel almuminu aji gëm ja yowmal min rabbihi ci boroomam xataa yabaxa ba mu teg xàllihi ci moom kanafahu suturaam ak yërmandeem fa yuqarriruhu te mu koy saxalloo bi dunoo bi ay bakkaaram fa yaqool te muy wax ataarifu ndax da xam dam ba kaza bakkaaru nangam ndax da nga xam dam ba kaza bakkaaru nangam fa yaqool te muy wax rabbi wa sama borom aarifu danaa xam kay xaala mu ne ko fa indi naka man xadd satartuha istadaaloon naa ko xale ko ci yow fi duniyaa ci àdduna wa anaate man axfiruha danaa ko jéggal làkk ñeel la alyow tey jii fa yontaa te def ko jox saxifata xasanaatihi kayitu jëfi yéen ya muttafaqun alayhi ibnu xomar ne moo dégg yonent bi ne danga gis ku gëm yàlla su bis pencee yàlla jegeel ko boppam bu sës ci moom rek waaye nag mu sàng ko suturaalu yërmaandeem ne ko waaw defu woon bàkkaar sàngam mu ne ko aha kay mu ne ko defu woon bàkkaar sàngam mu ne ko aha kay wóor na mu ne day xam naa ne maa ko defoon suñu borom ne ko mënoon naa laa feeñal ci àdduna sangi sa mbalaanum sutura te defuma ko kon nag tey jiitam noonu rek laay def jéggal la duma sàngi sa mbalaanum sutura daal koy jox rek kay dund jëfi yoon te bañ koy jox nag kay dund ay ñaawteefam te addis boobu muttafaqun alayhi la nag mooy satraxoo suturaam wa rahmataxoo ak yermandeem waxaan ibni mas'udin radiyallahu anhu anna rajulan naka waaye asaaba jotoon na min imraatin ci jigéen xubalatan ak foon fa ataate mu dikkal annabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa axbarahu te mu xibaar ko fa ansala wàcc allahu yàlla taxala wa aqim taxawalal asalaata julli tarafay nahaari ci yaari cati bëccëg bi yaari wàlli bëccëg bi muy suba ngoon wa sulafan akub dog mi ne loolu ci guddi gi innal xasanaati naka yiw ya yóbbu xib na danañu dàq mooy danañu yóbbu asayi aati ñaawteef ya wala ma nga ca suuratu Huud laay ba topp rek téeméer ak fukk ak ñeent fa xaalate wax arajul waaja ne al ndax ñeel na ma haasa lii man dong yaa rasoolallahi xaala mu ne ko li jamihi ummati yi ñeel mboolem sama xeet kullihim mboole seen hadis boobu muttafaqun alayhi la ibnu Mas'ud moo ne woon daa benn waay bu ñëwoon ci yonante bi nekko man de dama fóon jigéen joo xam ne waruma ko woon a fóon yàlla wàcce wa aqimi salaata tarafay nahaari wa zulafan min al-layli innal xasanaat yudhibna sayyi'aat taxawalal julli ci subaak ngoon ak ci waxtu guddi mel loo kon day dugalaale mboolem julli juróom ne ko boo ko defee julli ñooñu yu baax yooyu day daal di dàq bàkkaar yi ñu def loolu ma nga ca sóoratu xóodu laaya ba tolloo téeméer fukk ak ñeent waaje ne yonante bi ndax loolu man dong maa ko jagoo mu ne ko déedéet mboolem sama xeet yi ñoo maase ci loolu te addis boobu muttafaqun alayhi la waxan anasin jële ci anas radiyallahu anhu qaala jaa dikkoon na rajulun waay ila nabi sallal xaal mu ne ko yaa rasulallaahi asabtu jot naa xaddan gétan fa aqimahu taxawal ko xale ci sama kaw wa xadara te teew asalaatu julli fa salaati mu julli maha rasulillah an wonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam falamma qadaa ba mu jeexalee asalaatu julli nga xaala mu ne yaa rasulallahi indi naka man asabtu jot naa xaddan gétan fa aqim taxawalal fiye ci man kitaaballahi téeréb yàlla bi xaala mu ne ko hal xabarta ndax teewe nga ma xanaa ànd ak nun asalaatu julli ga xaala ne ko naxam waaw xaala mu ne ko xaduxu vëra jëggaleef na lakka ñeel la hadis boobu tey muttafaqun alayhi la waxaw lu waxam ja asabtu xaddan ma anaahu maxnaam mooy maasiyatan ak mooy doo jibbu kon day waral ak taasira yar wala sal muraadu déet lañu namm alxadd gétan nga al sharxiya gay ko jóg yoon alxaqiqiya gay ko jóg dëgg-dëgg ka xaddi sina ni ki gétanu njaaloo wal xamri ak sàngara wa xayrihima ak lu dul ñoom ñaar fa inna haadihi lu xoddooda naka yi lay gétan laa tasqutu duñu rate bisalaati ci julli wala yajuusu te du dagan lil imaam ñeel ilimaan ba tarkuha seenu bàyyi anas ne daa am waaj ñëwoon ci yonent bi ne ko man day def naa lu tax ñu war maa géttan kon nag géttan ma fekk waxtu julli jot mu daal di ànd yonent bi julli bu jullee ba sëlmal mu del waxat la waxoon ne ko def naa lu ma war a géttane seetal li alxuraan wax ci man nga def ma ko mu ne ko ndax fekke woon nga julli ji bi nga julli ànd ak nun mu ne ko waaw mu ne ko kon jéggal nañu la mu ne xamal ne la bu doon li waral jëtan dëgg-dëgg mel na njaaloo wala naan sàngar ak mboolem xeeti jëtan yi moom faaw su xasee ci attekat bi faaw mu wóor ca la yàlla santaane daa fekk lee mu wax ne mu tudde ko jëtan rek te du jëtan dëgg-dëgg dafa doonoon xeetu mooy yàlla goo xam ne téere bi rëdd ci ne nangam moo ca war yar rek ci waroon loola te yar nag atekat baay xool la ci yell mu def ko ca waxanhu jële ci anas ba tey qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa naka yàlla la yarda dana gërëm anil abdi walis jàmba anil abdi an yàqula mu lekk al aklata genn lekk fa yaxmadahu tem koy sant alayha ca moom aw yashraba wala muy naan acharbata naan nga fa yaxmadahu te mu koy sant alayha ca moom rawaahu muslim al aqlatu bi fathil hamzati nekk nañ fata hamza ga waxiye moom al maratu mooy yoon wa al waxidatu di yenn min al akli bàyyi ko al akli bi fi di lekk kal gadawati ni lekku suba muy ndékki wal xasiwati ak reer wallaahu aalam anas ne daa dégg yonante bi ne yàlla day bu gisee ab jaamam mu lekk rek genn lekk daal ko cay sant mbaa naan genn naan daal cay sant yàlla yàlla da koy dal di gërëm mel ne mu añ rek wala mu reer rek daal di yëg xiwaar da ko yàlla doxal daal di sant yàlla loolee day yàlla mën na ko caa daal di gërëm وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى day tàllal yadaxoo loxoom bi léegi ci guddi li yatoo ba ngir na tuub musi un nahaari aji ñaawal ci bëccëg ba waaye bu sotu te muy tàllal yadaxoo loxoom bi nahaari ci bëccëg ba li yatoo ba ngir na tuub musi un layli aji ñaawal ci guddi ga xataa tatluwa ba fenk asamsu jant bi min maghribiha ci sowukaayam ba rawaahu muslim abu muusa ne yonent bi dane woon su borom day su guddee day tàllal loxoom di wax naa ana ko defoon bàkkaar ca bëccëg ba tuubal ma rek ma jégal ko su bëccëgee itam ma ngay tàllal loxoom di wax naa ana ko defoon bàkkaar ci guddi ci lu weesu jéggalu ma ma jéggal ko ni mu waxee taabal loxo gi rek mooy day wane ne yàlla saa yu nekk rek muy guddi muy bëccëg ma ngay am yërmande ci bëgg jaam yi tuub ku ci tuub rek mu jéggal la ndax benn moom ko ko def bàkkaar ba def ko ci guddi mbaa mu def ko ci bëccëg bu ko defee ci guddi gi nga xam ne yàlla ngi koy séentu mu tuub ci bëccëg ba ba mu jégal ko bu ko defee ci bëccëg bi noonu lu mu ko defee ci ñoom ñaar daal na fexee gaaw rek tuub ko ci la ca topp ndax yàlla jégal ko waxan abi najihin xamrub ni xabasata bi fatxil xay ni wal ngay jàng xabasata assulami kay ko jug sulam radiyallahu anhu qaala kuntu nekkoon naa wa anaata naate man fil jaahilati ci baa nekkee ca ceddo ba nekkoon naa avonu di jortu ne am na naas naka nit ñi xalaa jalaalit nekk nañ ci cànkute wa annahum ak naka ñoom lay soo déet ñoom xalaa shay'in ñu nekk ci dara waxum fekk na ñoom booba yaa bu doona doon nañu jaamu al awtaana xerem ya fa sami atuma dégg bi rajulun ci waay bi makkata joj nekk na ci màkka yëfbaru di xibaar axbaaran ay xibaar faxaxattu ma jekki xaalaa raaxilat yi ci kaw sabak naaga maanaam war sama gëléem la jublu ci faxaxattu xaalaa raaxilat yi faqadimtu ma dikk xaala yi ci moom fa ida rasulullahi am tu lu ma yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi ma fekk ko mustaxfir muy aji làqu jura aaw way dëjër la la ci kawam xawmu foo nitam ña fatalat taftu ma ñëwant ma muus muuslu xataa dax xataa daxaltu ba mu dugg alee ci moom bi makkati ci makka boxultu ma wax la xoo ñel ko ne ma ant ana loo doon lii yow mooy loo doon xaala ne ma anaaman nabiyun ku ñu soloo laa ak yonente laa boxultu ma ne ko wama nabiyun luy ku ñu soloo xaala ne arsala nii yabal na ma yàlla fa xultu ma ne ko bi ay shay'in ana ci man mbir arsalak la la yónni xaala mu ne arsala nii yebal na ma bi silatil arxaami ci jokk jege ñaale ba kasil awsaani ak damm xërëm ya wa an yu waxada ak bu dee fi wóotal allahu yàlla laa yushraku dee fi bokkaale bii ak moom shay'un dara xultu ma ne ko faman maxaka ana ko ànd ak yow xala haza lii xaala ne ma xurrun benn gor wa abdun ak benn jaam wa ma xawate ànd naag moom yow ma isin ci bis boobee abu bakarin abu bakar wa bilaalun ak bilaal radiyallahu anhuma xultu ma ne ko indi naka man mu tabixu ka aji topp laa la ma a topp xaala mu ne ma innaka naka yow lan tastateexa doo man daalika loolee yow ma ka ci sa bi xaasa ndax doo gis xaal sama mbir wa xaala naas ak nit ñi walakin waaye irjia dellum ilaa ahlika jëm ci sa ñooñ fa ida dem dégg nga bii ci man xan zahartu ma feeñ mbaa ma not samay noon fa ci nii kon dëkkal ma xaala ne fa zahartu ma dem ilaa ahli jëm ci sama ñooñ wa qadimata dikk rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi al madinata madina wa kuntu fekk nekkoon naa fii ahli ci sama ñooñ fa jaxatuma tàmbali ata di gëstoo ko nemmeeku al axbaara xibaar ya wa asalu te may laaj annaasa nit ña xiina qadima ca waxtu moom dikkee moom yonante bi al madinata madina xataa qadima ba dikk nafarun ab kuréel min ahlil madinati ba daa bokk ci ñooñ madina fa qultu ma ne leen maa faxala analum def hada rajulu ji liwaay allasi ci nga xam ne xadima dikk na almadinata fa xaalu ñu ne ma annaasu nit ñi siraahu mooy gaaw nañu ilay jëm ci moom waxad araada te na moon na xawmahu aw nitam xattalahu ak rayam falam yastatioxo te mënuñu daalika loolee fa xadimtu ma dikk nag al madinata madina fa daxaltu ma tàbbi alayhi ci moom faxultu ma ne ko yaa rasulallahi ataarifu nii ndax da nga ma xam xaala mu ne mën xam waaw ante yow allazi yaay ka nga xam ne laqiita nii tasewoon nga ak man bi màkkate ci màkka xaala ne faxultu ma ne ko yaa rasulallahi axbir nii xibaar ma xam maa waris li nga xam ne xamal na la ko allahu yàlla wa ajhalahu te man ma réere ko axbirni xibaar ma ani salaati wali si julli xaala mu ne ma salli jullil salaata suba yi julli suba su ma xasur topp nga fegu ani salaati wali si julli xataa topp joxa ba fenk asam su jant ba xataa tartafiha ba mu yëkkatiku xëy daroom xin lu tolloo ko xeec fa innaha naka moom topp joxu dana fenk xëy na topp joxu ci waxtu dana fenk bay na xar nay seytaanin ci diggante ñaari jubbi seytaane waxi isin ci waxtu woowee yes ju day sujjóot yes juddu day sujjóot la jant bi al kuffaaru yéefare yi su ma sali topp nga sañee julli nag fa inna salaata naka julli ga mashhudatun lu seere lay doon mahduratun tey lu teewe ay taxduruha malaikatu naar li taktubaha wa tashhada biha liman sallaha xata yastaqilla ba wàññikoo wàññiku ba néew a néew dillu takk ndeer ba bi rom ca xeej ba daa bëgg a wax xata yabluga dilluhu adna gaayati naqs su maqsur topp nga fegu nag ani salaati walis jullit naafila fa innahu naka lay mbir moo di xiina isin ci waxtu woowee tus jaru la dee fi xambu jahannamu sawaraw jahannam fa ita aqbala dem dëgmal si na alfay u keppaaru tisbaar fësal li jullil fa inna salaata naka julli ga mashhuratun lu ñu seere la mahduratun tey lu ñu teewe xataa tusalli ba ba ngay julli alxasar takkusaan su maqsur topp nga fegu ani salaati walis julli xataa taxruba ba so asam su jant bi fa innahaa naka moom taxrubu dana so bay na xarnay seytaan ci diggante ñaari jubbi seytaane waxin is ci waxtu woowee yes ju dana sujjóot yes judu laxaa ñeel ko al kuffaaru yéefar yi xaala ne fuqultu ma ne ko yaa fal wu boobu njàpp nag xaddis nii nett li ma an walis ko fa qaala mu ne ma maa minkum déet di am ci yéen rajulun jenn waay yu qarribukum dina jegeñal waboo ahu ndoxum njàppam ma al waboo bi fàttali waaw yi muy ndox ma ñuy jàppee bokkut ak al waboo bi dammil waaw yi muy njàpp ma fa yàppam mab mab te muy galaxndiku fa yastan siqu te muy saraxndiku fa yastan siru te muy fiiru illaa xarat ndari borotee xataaya wacc yi ñaawtee fi kanamam nga wa fii ak gémmiñam nga waxayaa chimi yi ak way làqu yi paxi ba kanam ya suma isa xasala topp ndem raxas na waccaoo kanamam nga kama amarahoo naka mu ko digale allahu yàlla illaa xarrat nday bu xataaya wacc yi ñaawtee fi kanamam nga min atraaf lixyati yi bàyyi ko ci cati sikkimam maxal maay ànd ndox tumma yaxsilu topp na raxas yadayhi yaari loxoom ilal mirfaqayni ba ci ñaari conceer illaa xarrat nday bu rot nday bu rotee xataayaa yadayhi ñaawteef yaari loxoom ya min anaamilihi bàyyi ko ci ay kóoli baaraamam maxal maay ànd ndox ma tooyam sama topp dana ma saara soxo boppam illaa xarrat nday bu dafa rot xataayaa rasi yi ñaawteefi boppam ba min atraafi sha'rihi bàyyi ko cati kawaram nga maxal maay ànd ndox ma tumma yaxsilu topp na raxas xaddamay yaari ndogoom ya ilal kaabay ni ba ci ñaar dojar ya illaa xarat ndare mu rot xataaya rijlayhi ñaawtee fi ñaari tànkam min anaamil yi bàyyi ko catti baaraamam maxal may ànd ndox ma fa in huwa ndeem moom xaama jóg na fa sàllaate mu julli fa xamida te mu sant allah yàlla wa asnaate mu tagg xale ci moom wa majjadahu te mu teddal ko wax ak teddam billa fii ci la nga xamee ni ko moom ahlun mooy aji yàlloo la waññeel ko wa farraxati mu féexal xalbaxoo xolom lillaahi ñeel yàlla taxalaa kawe na innam sarafa ndare mu walkatiku xan yi atihi bàyyi koo ca aw ñaawteefam ka xay atihi mel ne meloom ba yow ma wala datu ci bis ba ko judee ummuhoo ndeyam fa xaddasata nett li xamru bnu bi haatal xadiisi mu nett ko ku ñu wax aba umaamata saaxiba rasulillahi kay saxaaba bi yonent yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam fa xaalati wax la wëññal ko abu umaamata ne ko yaa xam rab na xabasata untur seetal bu baax maa taxool li nga wax fii maqaamin ci taxawaay rek waaxin bu di benn yooti dana joxe haasa lii arrajulu waaja fa qaala xamrun xamar ko yaa aba umaama laxad kabirat mage sinni sama tolluwaay dund waraqte sew azmi sama yax waxtala ba te jege ajal yi sama àpp wama bi te dir mu nekk ci man xaajatun seen soxla ak ak fi ci may fen xalallahi ci kaw yàlla taxala wala xalaa rasulillahi du caagéen ci kaw yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam law lam asmahu doonte déggewuma ko woon min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa marratan yoon aw marratayni wala yaari yoon aw salaasan ba ñett xataa xadd ba mu lim sabha marratin juróom-yaari yoon maa xaddas ma nekk li bi ci abadan mukk walakin waaye man sametuhoo dégg naa ko ak sa lu ëpp min zalika ci loolu rawaahu muslim qawluhu waxam ja jura'u alayhi qawmuhu huwa bi jiimi nekk na ci jiim mabmumat nga diguñ dàmm wa bil maddi ak ci bijjiga xalaa wasni xulamaa ci màndaxem xulamaa ay jaasiroona way ñeme lañu mustatiloona tey way yuqamtiku xayru haa ibiina duñu way faale duñu way haasihi lii arriwaayatu mooy nett li ba al mashhuratu ba di buñ siiwal wara waaxu nett lee ko al humaydiyu humaydiyu wa xayruhu ak kuril humaydiyu xiraa un bi kasil xaay ci kasra xaaga almuhmalati waxaal te mu wax ne ma anaahu maxnaam mooy zudaabun way mer lañu zow xamin te waroomu naqar wa xamin ak ñag-ñagu xol xat xii la ñàkkeef na sabrum seenu muñ bii ci moom xataa ab tara ba mu jeexital fii aji saabim ci seen yaram min xawlihim bàyyi ko ci seen i wax xaraa làpp na gisuma ko yaramu ba yaxar yi dana làpp isaa naqasa ndéem wàññi na min alamin ngir aw mettit aw xammin wala aw naqar wanax yi ak lu mel ni war sax yi waaye wax jiwér mooy ànnaxoo naka moom bil ji mi nekk na ci jiim nga xaw lu waxam ja bay na xar nay cheytaanin ay naaxiya tay rasi yi daa jublu nekk na diggante yaari wàlli boppam ba wala mu raadu waaye lam namm ak tamsiir mooy misaal rek maanaam maanaam mooy ànnaxoo naka moom yéen is ci waxtu woowee yataxarraku dina yëngatu asheytaanu seytaane wa siixatoo ak i àndaaleem wa yatasallatoona te ñuy xabtaloo waxaw loo waxam ja yuqarribu wabbu ahu maanaahu yuxdiru dina teewal almaa ndox ma allasi ma nga xam ne yatawaddaw dana jàppe bi ci moom waxaw loo waxam ja illaa xarrat xataayaahu foo moom bil xaay nekk na ci xaalonk al moo jamati gën guñ tomb ay saqatat rot rot na waaye maanaam xarrat saqatat mooy firi xarrat wa rawaahu baaduhum am ñu ko nettalee jarat kon mu daw bil jiimi ci jiim nga wa saxiix waaye wax jëwër bil xaa mooy mu nekk ci xaaga waxoo moom riwaayat jumhóor yi mooy nettali li ëpp ci nit ñi mooy mbooloo mi waxaw lu waxam ja fa yestan sirita muy fiiru ay yastaxriju dana génne maa la nga xam ne fi fiyan bi nekk na ci bakkanam min azan ci sobe wa nasratu an nasratu taraful an fi mooy catul bakkan ba ku ñu wax abu najih ci dàkkental mu tudd xamru bnu xabasa bokk ci waa sulam moo ne ci jamonoy ceddo ga dama jàppoon ni nit ñi li nekk ci jaamu ay xërëm moom du dara ma dégg na benn waay bu ñuy wax foofee ca màkka muy woote yonante ma war sàggaleem ba agsi ci moom fekk yonent bii ma nga làqu ay nitam soxor ci moom lool dëjër li ci kawam mel ni sax mënta feeñ na mu ko bëggee ma muusantu muusantu ba àgg ci moom fam nekk ci màkka ne ko yow loo doon mu ne ma ab yonante laa ma ne ko lan mooy ab yonante mu ne ma ku yàlla yónni ma ne ko lum la yónni mu ne ma damaa wax ne ma santal nit ñi ñu jokk ak bokk te